وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ngeen jégal ma ma toog pour mën a wax ak yéen ndax eh, taxawaay bi daf may xaw a sonal tuuti eh, ñoo ngi am kontante ak mbégte bu mag a mag a mag ci jataay bi ndax euh, liñ ci njëkk a kontaan loo mooy wax dëgg yàlla parent délai bi ñëw ngeen et lii day wane seen euh, taxawaay ci jàppale école bi kon nag noo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ndax jot yombul rawatina ci jigéen ñu mel ni yéen ak seeni préoccupation yu bari yi ngeen am ñoo ngi am contentement bu baax a baax nag ci li ko principal waxe muy ak tiant gu jëm ci njaay kura ndax euh, njaay kura yaaka na ni bu ma jëmul lu mat 4 ans ngi nii mu ñew di jàppale école bi di jàppale xalé yi di jàppale parents d'élèves bi kon nak ñong koy sante ak association bi nga xamni mom la taxawal fi ñukoy tuddé Carrefour du Bonheur ca manam Agnès yaakaar naa ni bu ma juumul euh, jiite ko <laughs> nga ñu transmettre bu baax a baax suñu suñu mbégte ak suñu contentement ci madame Agnès ak Carrefour du Bonheur bépp euh, dafa am nag lu ma bëgg a wax tuuti ci mbir mi ndax euh, dafa am ay incompréhension yoo xam ni mën naa am te buñ ko leeralul fii parents d'élèves bi xam ko mën na nekk ay gàllankoor ëllëg ndax état bi mom mo jëlon décision di ren inscription yi daf ko def 5000 5000 francs de 3000 francs de 3500 à 5000 ni dal inscription yi mom la def ci lolu ñepp xam nañu fait 5000 francs mo lu fonctionnelo école bi kon nak état bi ba mu jëlé décision bobu dafa wara am ay mesures donc, xam ni dafay pour compenser manque à gagner ndax inscription yi 9000 la et 9 000 9000 yooyu man ci comité de gestion école dan daan am sax ay difficulté balaa école bi jeex ndax euh, normalement élève bu jàng bu ne say parents daf la waroon jëndal ay livre un livre mathématique livre anglais livre histoire géographie livre langue livre nangam livre 4000 francs 5000 francs Nous, ñu professeurs exercice yi ouvrez livre de mathématiques page 44 numéro exercice 45 vous avez mais livre nan moo tax yooyu yëpp ñu jël ko di def ay photocopie di ko jox élèves yi ba nga xam ne boobu amul livre amee livre moo gën ndax di jàng sa mais boo amul livre it du la gàllankoor ci école bi ndax bu photocopie ñëwee danañ photocopie daf ay polycopies jox ko ñëpp ñëpp mën a def exercice yi ñëpp mën a gis dessin yi ñuy def bu dee ay ay ay ay sciences naturelles bu dee leneen ak leneen ñëpp mën ci jot kon yaakaar naa ne loolu ndimbal la te photocopie yooyu bu amul njàng bi du mën a dox tax.

muy parents d'élèves yi CM bi ak lycée bi ak ay ressources ñoo xam ni affaire njàngale mi ñor na leen ñu taxaw la maire ñu waxtaan bu ñu waxtaanee lañ fa jëlee mooy xam nañ ni cinq mille francs inscription mënul yor école bi ndax principal a ngi nii toog daf ma waxoon ni ma gardien école bi dañ koy libéré man ko leen de laa lay waxal gardien école bi ñu ko libéré ñetti fan laa la may ñu sa bureau boo fekk ñu daje ko jël li nekk ci école bépp kon école mënul manqué gardien toilette yële mën ko buñ ko buñ ko dul defar mais élèves yi dana mujj kenn dootu fa mën a dem kuy jàng ba ca yàgg nga soxla sa bopp kon fan ngay dem da nga dem ci ay toilette fekk mu nekk sax loo fay def parce que kuy jàng aussi da ngay nekk ci milieu boo xam ne milieu bu set lay doon kon jigéen ñi nga xam ne ñooy defar foofu ñoolu mënul ñàkk ci école bi waaw ñi nga xam ne ñooy nettoyer classe yi loolu mënul ñàkk ci école bi charretier bi nga xam ne buñ ko nettoyer semaine bu nekk wala fukki fan yu ne moo fi jaar jël oto yi dem sànni ji ko mënul ñàkk ci école bi bu dee lycée bële ñoom dañu am sax